dëgg la moo tax euh, ñun amuñu loolu ñuy laaj taalibe kon ñu fayee ko fa ñuy liggéey parce que ku bàyyee ku bàyyi salaire boo xam ne euh, borom nee na loo proposé ma fay la ko nga ne ko proposé wu ma dara bàyyi ma ma liggéey ti dem sama yoon. defe naa doo bàyyi loolu di laaj ay ndongo ti laaj ndongo nag dafa ñaaw jox leen ma naa nangam ñu dem sama gam cotiser leen ma du ma ko wax ñii ñoom aaru naa ngi nii kii oustaz la boroom xam-xam la waaw du dindi li ma wax kii nii kii noonu oustaz Oustaz Mouhamed Mbaye ngi grand sëriñ a ngi nii toog ak ñi sama ginnaaw ñoom Ousmane sopp na bi amul kenn mbir mi dafa ne ak sama waa ji nee na ñuy tuddaale ko Babacar donc loolu loolu rek la tëddee parce que itam nit ñi booy ànd ak ñoom te bëgg ànd ba neex bu leen teg dara ba leen ak seen bopp waaw da leen di bàyyi ak seen bopp soo leen tegee yenn sa rek daw la nit ñi baleen ak seen bopp baleen ak la nu am loo am bokk kook ñoom soo amul ngeen bokk waxtaan mu jeex Voilà. xaaral Elane. Euh, na sax de presse la waaye am na ñu yéen am na lu ma la sasoon. Uh-huh. français bi moom benn yoon yaa koy def. non anglais laa man. français cours yi il faut nga. anglais wala allemand bu ngeen bëggul ngeen bàyyi. mais man ay français moom duma ko làkk. parce que france yi ñoo ñu notoon moo tax bëgguma wax seen làkk. mais allemand daal mën naa ko wax chinois wala ay ok ba beneen